doy nga ñu sëkk yaay suñu buur allahu allah du ñu jaamu ku la mooy allahu allah moom ba ñëw fii ak yéen def lépp yàlla ko yàlla def yiw jataay bi ngeen am fii ak fu ngeen mën a jëm lépp yàlla ko yàlla def dikki dem yàlla yàlla def lépp ak yiw ah ñu leen sant leen seere xam naa kàddu yi ñu dañuy xam ne dañuy ñaan rek eh, ñi nga xam ne eh, taxawu nañ bis bii ba mu ak fii ñoom ñépp kenn ku ci nekk ñu ngi ñaan yàlla euh, mu fayal nu la ngeen ji fay euh, di wax kii nga xam ne mooy sunu doom ji di Mouhamed Lamine Diop di leen ci ndokkeel yéen ñëpp ndax tey ji xam nañ ne moom jàpp ngeen ne ëppale wuñu leen ci jàppale ngeen ne doomi Afrique la waaye jàpp ngeen ne doomi Sénégal la kon alhamdulilah ñu ngi ñaan yàlla mu sàmm ko ñu ngi ñaan yàlla mu aar ko ñu ngi ñaan yàlla li mu xamas néew li mu xamas ko néew mu jariñ ko ak ak yàlla ak nga xam ne xam ne ko néew mu doon koo xam ne kii dafay def boppam euh, njëfandaay loo xam ne lislaam ko moom li mu xam lépp yàlla na doon loo xam ne lii xam-xamam wala lu mu mën a xam itam yàlla na ci lislaam jëriñ di xam ne ñu ngi koy sant wax dëgg yàlla di ko gërëm ndax itam ñu ngi koy wax keroog ci aéroport moom mii ba mu juddoo ba léegi ba mu amee juróom-ñaari at ba fii ñu toll nii mosu ñoo nekk ak moom ñeenti weer yu mat ba nga xamee ba mu demee jàng ba dikk takk nañ ko sax gannaawam sax keroog aéroport la ci la ci si kon lu nga xam loolu diir bu yàgg la te muñ la kon ñu ngi ñaan yàlla yan yàlla sàmm ko yan yàlla aar ko yan yàlla bari ay kewam li ma xamas ko néew yàlla ko islaam jar ñoom li mu nga xam lépp yàlla koy def muy ak ak ak ak ak jaamu yàlla yàlla ko yàlla def muy taqwaa ci moom ndax xam-xam boo xam ne bi amul ragal àdduna ak ragal yàlla amul solo kon yàlla ko yàlla def mu doon loo xam ne ak ragal yàlla ci moom ñu ngi sant ñëpp ñi nga xam ne nag ñooy ñooy ñooy ñooy taxaw taxawee bis bii kum mën doon ñëpp incha allah yëmul woo ñàkk jël kàddu waaye salaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah wa barakaatuhu Baye Dame yal na yàlla fay la en tout ñu ngi lay ñaanal yàlla subhanahu wa